nam baaxoo woon ci jataay ba ñetti fan di ak ajjuma taarix dafa dellusiwaat waaye ku ne xam ne Cheikh Abdou Khadre bi ñu koy def alxuraan moo ci war a jiitu jataay bii dañoo xas ba agsi waaye dañoo alxuraan ji ba tëj kaamil bi fas yéene war a jiitu waxtu suma borom moo ci war a topp te jataay bi dafa xat te ajjuma ji ñëw mbokk yi teew nag dañoo bokk ci daayira yi nga xam ne ñoom la sëriñ bi àndal liggéey bi ci mënoo yu gënaar yi ndax léppam da ko delluwaat ci turandoom Cheikh Mouhamad Lamine kon nag nañ gën a wéyal dallu yi àggale liggéey bi ñu jàllale ay kàddu yoo xam ne jëm na ci bi nga xam ne ñooy daayiratu mënoo yu gënaar bu daarul xaddim ñoo agsi woon léegi tout à fait ànd soxna ak soxna Ami Ndiaye mi nga xam ne mooy seen jiit jébbal ab liggéeyam sëriñ bi kon dana yàlla sëriñ bi ne leen jërëjëf ndax jërëjëf baat bu gàtt la waaye sëñ Mouhamadou Fane maam laa wax ne ku ko waxu kon nag sëriñ baa ngi leen di wax ne jërëjëfati sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne agsi nañ ci kër gi ak ñi amoon yéene ñëpp. li doonoon yéene mooy bàyyi ba alxuraan ji noppi rek mu jotal ay kàddoom waaye nag ginnaaw ubbi na ko kon fooy mën a nekk te di gradi yi sëriñ baa ngi lay dooleel jàmm wax na fa nga nekk amoon na yéene fekk na bu dee ko mu war a jox loxo bu dee ko mu war a xool xool ko ci xool yi a nga xamante ne bii ne mooy ba gën a sell tatagal leen taataagal leen wala ne bis bi ku ci ñëw rek yëg na ni cofoo ko yëg ko ndax lu mu amit ñaar ñii la Cheikh Mouhamadou Fadil Cheikh Abdou Khadir tey nag Cheikh Abdou Khadir lañ tàntal fii kon ku bàyyi ay yitteem ñëw ci na nga yëg ne sëriñ bi bool naa ci boppam te duut la génne ci boppam kon soxna Ami jaay sëriñ ngi leen di ak cant ak ak tuut tànk yi nee na bi nee mi ngi soññ tuut tànk yi nga xam ne ñoom la ànd liggéey bi ñu gën a farlu ci njàng bu baax fonk seeni waajur yi bu baax ndax Cheikh Abdou Khadir mi nga xam ne moom la ñuy woote bis nii ku ko mas a tàllal ay loxam day wax ne mu ngi lay digal nga sax ci jaamu yàlla sox ci njub moytu ko tooñ te ku nga jéggal ngir yàlla te fonk sa ñaari waajur kon nag sëriñ bi nee moo tënk lépp sëriñ baa ngi leen di sant bu baax di leen wax ne gone ngeen waaye jàppewu leen ay gone kenn ku ci ne pas-pas bi mu am ci liggéeyal sëriñ Touba ndax ku ne xam na ne gone moom suñu borom da ko soxla saytaane soxla kon nag ku am tawféexi suñu borom dimbali la nga jóg rek

gis na taxawaay yi ak seen positif ci sëriñ bi kon nag nee na yàlla nañ suñu borom gën a dëgëral gën leen a sàmm bu baax ak seen waajur yi fekk seen i njëriñ ñëpp jërë ngeen jëf sëriñ bi nee na ni ñu ko waxee rek alxuraan ji la ñu ubbee bis bi te tëjaguñ ko waaye kon agsi ngeen faaw ñu dalal leen rek waaye nee na jërë ngeen jëf. kon sëriñ bi na sant na bu baax. waaw soxna mi nee bu fekkee nañ ci am ay kàddu nga jotale ko rek ñu daal di ñaan ndax xataay waxtu bi rek te jëf ji moom Sëriñ Tuubaa tax te gis na ko kon nag li sëriñ bi dénk ndaw yi rek loolu la Alxuraan wax boo sëy naa insaan bi waaye day yoxu si xam-xam nag moo war a wommat jëf jëf moom. bu àndee xam-xam rek alhamdulilah ci topp soxna si nee mi ngi ñaan rek. nee na jataay bi yàgg rek. sëriñ bi ñu yàgg dafay fekk mbooloo mi barke bi Sëriñ tax ñu woote bés bi. soxna si nee na giñ na ci sunu borom ne. kon ñu fekk fi sëñ Touba bàyyi rek sëñ rek lépp di sëñ Touba rek kon fooy mën a nekk rek soxna si nee na li dolli. gën a sant sax maam mii rek te gën laa bëgg rek mbàkki ndax nee na wax dëgg yàlla mënuñu laa fay mënuñu laa fay nee na nee lay ñaan rek mbàkki fi nga bëgg ak àgg sunu borom àggale fi tam bañ a ànd ak menn ndox nee na nga yàgg fi ñu la fi ñëw la fee fekk yàgg fee ñëw ak jàmm ak wér ak xiiwal te yàgg la fee fekk te fekk fi loolu ñu ñaanit yàlla sunu borom defal ñu jàmm ak teraanga ak sutura ak barke Mbacke nga ànd ko sa kilifa yëpp Mbacke. waaw nee na soxna si de nee na jëf ji sëñ Bara nee na soxna Adama moom mooy jëwriñu liggéey bépp moom mboolem day yëpp soxna Adama moom mooy seen jëwriñ kon loolu moom kon a xam na ne ku ko jàpp rek nee na jàpp nga lépp. kon nag soxna soxna si nee bi nee na sant na ci loolu bu baax a baax a baax ginnaaw soxna Adama ginnaaw sunu maam Adama moo njëkkoon ci kaw suuf ci àdduna sëriñ bi nit sëriñ Adama Guèye nee kon bu jiitee liggéey bi mu Adama kon xel mën na cee bu baax alhamdulilah waaye nekk na tàllal loxo amin amin Mbàkke amin allahumma amin amiin Mbacke allahumma amiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin maa ngi leen ne sëriñ bi nee na yéen ci tànk yëpp waaye mën a nekk rek nañ maasee ñaan ñaanal sëriñ bi ñaanal lépp rek ñu bëgg yëpp ak barke sëriñ Tuubaa xasaay amiin ñaanal leen yéen ñëpp nañ maasee ñaan amiin yàlla dégg na lépp amiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin allahumma amiin amiin amiin amiin jërë ngeen jëf